wax ne euh, réunion bi réunion de restitution la woon waaye mel na ni sax gën naa yaatu euh, rek euh, loolu ndax am na yeneen i xalaat yu ci yu ci yokku loolu it xëy na participation yeneen i nit yu bees moo ko indi loolu kon ba tey sant yàlla ndax yokku la rek kenn koo xam ne doyloo na boppam képp ci biir liggéey amul kenn ku ci ne yëg dem nga xam nga ni soxla nga ci ñëpp soxla nga ci boroom xel soxla nga ci boroom xam-xam soxla nga ci boroom xaalis soxla nga ci ndaw lu sawar loolu ñun ñëpp xam nañu mu mel ni liggéey la boo xam ne sëñ bi moo ko porté moo ko moom ndax moom moom lépp lu ñu fi yëngu moom lañ koy yëngal waaye nag euh, yitte nit ñi doo nga tax nit ñi njariñul nit ñi képp moo tax mu mel ni wax nañ ci ci anam yu bari waaye surtout maire engagement yi mu jël ñu jëm ci euh, forage yi ay réalisation ay ak ay pompe yu mel noonu waaye lu mel ni wér-gu-yaram ci ndox mi euh, ma sañoon danaa wax maire mu boole ko ci li muy def muy lu mel ne pompe doseuse yi ñuy wax ak colorant yi colo ci euh, yi nga xam ne moom la ñuy traité ndox mi yooyu dafa am solo ndax li ci aju dafa bëri wér gu yaramu nit ñi ci la aju ci ñi ëpp ci nit ñi quatre-vingt plus de quatre pour cent wu population Touba ci ndox mi la ñuy naan donc lijjanti ba leen ci am lu mu néew néew it bu doyut it mën a doon ndox mu baax ñu mën ko jariñu lu am solo la. defe naa loolu dañu koy ñaan nga boole ko ci ndax yooyu partenaire potentiel bi nga xam ne xam nañ ne nangam am nga yéene ji nangam a ngi fi pour jëm ci loolu ñi ci des lépp lu ñuy wutiwale lu ñu wuti la ca amagun ko ginnaaw nag yaa ngi fi ci sa dëkk ndax li ma lay faral di wax rek Touba sëñ bi la waaye nag buñ jee jaar ci kii yow yow yi premier magistrat de la ville de Touba <laughs> bu ñuy am lu ñuy layoo ci yow la ñu war a ñëw njëkk koo layoo ci yow kon loolu engagement boobu ñu ngi lay ñaan ci turu sëriñ bi nga jëlal nu ko boole ko say engagement maam koloor bi am ci ndox mi nga jël ko nga boole ko ci parce que li ci lëkkaloo dafa bëri li ci des rek mooy ñun ñëpp am suusi ñu tey ñi fi liggéey surtout may félicité waa hydraulique effort maawu rahmati ñi nga xam ne ñoom toujours ñi ngi ci ndox mi toujours ñi ngi ci ndox mi mu mel ni tey ñun lii suñu njàq rek suñu jaaxle ñoom dañ koo yàgg dund ay at ci gis nga ñoom ñii léeg-léeg sax dañ am ay jooloo ci biir yi ci reñu ci ndaje yi maa ñoom ci ay jëf waaye nag wóor na ni ma képp kuy liggéey ñu affecté la fi barab nga dëkk ci réew mi boo sañoon lañ la sant nga def nga am ci ndam man loolu xam naa ko xam naa ni am nañ yéene am ndam mais nag bu fekkente ni dañ lay liggéeyloo ca moyen suffisant amul ci da ngay am problème moyen nag dafa yaatu mën naa doon ay moyens moyens humains mën naa doon moyen matériel mën naa dafa bëri ndax liggéey bu toll nii ay nit ñoo koy def mbooloo koy def mbooloo mu xam li ñuy def xam responsabilité bu ñu yor parce que ndox ndox bari na lu nit. tey jàpp ne mënut te ñàkk te ndox ko gën a mën a ñàkk gën a gën a mën a ñàkk di ci nii te ña ngi cay gar seen bakkan lu ñu di ko def xëy na nag ndoxum Touba ni mu demee la parce que ginnaaw da nga koy jëfandikoo ci disu la ci laaj dara jàppoo ne dara war na la ci tax nga bëgg ko sobantal def ko euh, def euh, desal ko ginnaaw te lu ko ëpp solo ci nit am loolu sëñ bi xam ko bu wër xameen bu wër xam ne dafa am ay engagement lu mu jël muy engagement yoo xamante ni. Euh, ndox gënu koo ñor ndax xam-xamay lépp ndox mi pour ñu mën koo jariñoo xam-xam a tax ñu man koo jariñoo bënn teen képp bu amul xam-xam mënoo ko waxuma laa ngay gas forage di defar la ci war di ko canaliser di ko mën a distribuer ci nit donc ci xam-xam la jëm léegi nag yàlla def na am na ay structure yu ko fi nekkal muy maawu raxmati muy ko yëngul ci ndox mu xam la ne ni ko njàng moomu ñore ni la ko ndox mi ñore ndax it boo amul ndax doo jàng boo maree doo mën a jàng donc c'est yitte yi dafa liewu dafa dafa dafa duggante duggante wu doy waar woo xam ne ci leen lu ci ne farat du ñu këtti na jonn ju taxaw la te mëni surtout saafara ndaw yëpp kon nag ñun li ñu war a def rek mooy jëfandikoo lu ñu yàlla may ci xam-xam ak xel laytaayee ko sunu pas-pas li mën a am lépp ñu amal loolu rek mooy li am solo. mbir mi nag dafa neex dafa neex ci xol ndax wàllu ndox dafay lu lu doywaar ci Touba jafe lool ak coono bi ñu sonn bépp teewut mu am barab yoo xam ne bu fi mu ne ci digg dëkk bi la nekk wala boog taxul mu génn dëkk bi lool taxul mu sori donte maa sa ko jàppe banlieue te taxul mu am ndox muy lu doy loo xam ne lu kiimaan bi moo tax réunion bi ak initiative préfet bi mel na ne ci loolu laa ko yéegee ndax Bassirou mais lii mu leen fi wax léegi muy sama rakk Bassirou Mbacké li mu leen wax léegi ci ay diggante wan ak château yooyu maa moom dañ ci waxtaan moo am ci information ñëw ci man wax ma ko ma ne ko lii bala ñu ciy def dara damay dem ba ci sous-préfet ma toog ci bureau ñu bokk waxtaan bis bi ma yéeg initiative bi man maa ko di waxtaan ak moom ci loolu wax ko ne ko dama laa soxla waaye soxla si du ma la ko wax ci téléphone may wutal euh, audience ma ñëw ci yow ñu bokk too waxtaan ci baaxam mu ne ma déedéet man maa ñëw waaye bi waxtaan bi soree nag ci la ma leeral initiative bii nga xam ne moom lañu moom la bëgg a def bi ma ko waxee ma soulagé fi saasa ne ko loolu moom kon mel na ne daja nañ ci xalaat daje nañ ci bëgg-bëgg ndax ndox mu moom ndoxam Tuubaa amul lu mu jarut te it dafa bari ab pourcentage bi bu ñu wax cent pour cent la dafa mel na nun boo doon seetlu ak dëkk bi ci doyaayu ndox bi ma tegul sax cinquante pour cent loolu nag kon initiative bi ngir taxawal ci boppam euh, woo ci mbooloo bi di dox ko loolu itam lu am solo la dox bi itam kàddu yi ma fi dégg yëpp laa rafetlu li weer wax rafet na si Moussa wax si Ousmane surtout iddooli ñëm ñëpp Euh, waaye li ci am solo ñetti tomb laa ci laa ci laa ci laa ci gën a jàpp ñu xam ne lii du pour benn bis du pour ñaari fan dañ koy tàmbali di ca dox di ca dox ba keroog li ñuy sotti am ci liñ ci bëgg te ñi koy dox ñu ko noppee defit danañ fi bàyyi ñeneen ñoo xam ne dañ mën a continuer liggéey ndax loolu ginnaaw dëkk bi day yokku soxla su ndox mi day yokku ala kulli xaalin ku def ba noppi ba sonn wala nga màggat da ngay dem ñeneen ñëwaat di boobu kon ñu xamee ko noonu te bañ cee am benn jaaxle bañ jàpp ne lépp dafa war a yem tey déedéet day jàll lu yàgg yàgg yàgg incha allah ndax bu ñu ko deful rek ndox mi du mas a réglé dafa mel ne loxo yi mu nekk dafa liñ ci góor góorgóorlu dafa du dafay des lu bari loo xam ne day am yeneen loxo yi war a ñëwaat waa ko jàpp comme ni ma ko waxee si Moustapha léegi wax ko waa hydraulique wax ko waa effort wax ko ñi xam ne ñëpp ñooy yëngu ci ndox mi boobu mooy bi am solo boobu mooy benn point benn benn ñaareel point bi ci gën a retenir mooy wax nañ ko moo naa ci bañ a dellu si waaye dama ci gën a waat seen attention rek ñu xam ko te mooy moom itam wax ngeen ko léegi mooy wan yi hmm. wan yi moom lu yàgg a bari coow la loolu nag defe naa bu fekkoonte ne am na solution mooy li monsieur le maire wax hmm. ndax barki démb def nañ ko ci titre foncier comme ni mu ko waxee léegi waaye bañ demee di wa def itam defe naa ñoo ci ciy séenu réussite incha allahu ñi ngi àndoon ak moom ak ànd ak préfet ànd ak monsieur le gouverneur di xool titre foncier bi di ko saytu fenn fu nekk ña àndoon ñëpp teg fa seen tànk lu fa nekk ñu xam ko lu fa nekkul ñu xam loolu lu am solo kon loolu bu ñu ko xalaatalee ci ndox mi loolu dafay bokk ci point yi ëpp doole ëpp importance te mooy forme benn équipe équipe boobu ànd ak ay kilifa yeeg ñëpp bañ bañ a taayeel bañ a sonn bañ ko minimiser bañ ko féetale ay nit waaye ñi ci war a laal ñëpp àndandoo dem ca taawa ko ni ngeen ko defee barki démb ci affaire tuuti conseil yaakaar naa bu ngeen ko defoon ci wan yi surtout les wan yi nga xam ne ñoo gën a ràññee ko yaakaar naa bu ñu ko defee dana baax incha allah loolu am solo la ñetteelu point bi mooy château d'eau yi château d'eau ku ne xam na ne booy intervenir dëgg la maa ngi jéggalu ndax xam naa ne lépp a ngi ci document bi sax mm-hmm. euh, loolu lépp ngi ci document bi waaye il faut ñu gën a retirer waaw il faut attirer attention yëpp ndax château d'eau ku ne xam na ne wax dëgg yàlla booy pompe ndox moo xam ne ngaa bëgg mbooloo bokk ko mbooloo jëriñoo ko bu amul château doo wax dëgg yàlla ñu war a demee dëgg-dëgg du ñu war a demee non seulement du am du am am pression ba noppi pompe yi dañuy seen longévité dafay gàtt bu fekkee pompe bi liggéeyoon nañ ko pour cinq ans bu defee un an deux ans day day tas loolu kon gënut doo ko mën a traité aussi doo mën a traité ndox mi foo koy sànni ba traité wu ko day jafe kon château yi aussi il faut ñu veiller ci bu baax ba château yi mën a am mën a duy ndox di réserver ndox mi bu ko defee boo wàccee au moins mu am doole am pression bu ko defee kon problème bi comme comme li kon euh, initiative problème mu réseau la réseau bi ngeen wax loolu aussi loo am importance kon daal réunion bi man bëgg naa ci bu baax sant naa ci bu baax kàddu yi ma fi dégg rek rafetlu naa ko li sëñ Ousmane wax nii lu am solo la mooy mu sol dàllam parce que man ni ñuy wax lépp loolu sama xel nekkoon mu far ko waxal boppam te mooy nga sol sa dàll seeti acteurs yi acteurs yi person par personne wala mbooloo par mbooloo kuréel par kuréel kenn ku nekk ñi nga ci war a wax ñëpp nga dem ci wax ci ñoom ànd ak ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a àndal ñoom nga war a àndal loolu aussi boo ko defee defe daan dana dana ci jëlee résultat boo xam ne incha allah dana sa sëriñ bi lépp ñu ngi koy delloo ci kàddoom di xam ne lépp ci moom la te itam bu sañoon euh, ci laabiram ak yaatu xolam bu sañoon kenn du ne ci dafa am problème waaye rawaat na ngay am problème ndox bisimilah yàlla mu yàlla dafa ndam ñëpp